Pape Cheikh Diallo ku ne xam na ko Viviane mu nekk nit ku baax moo tax bu ma gisee Pape Cheikh Diallo nit di ko waxal dara daf may yéem billaahi wallaahi wa taala yi Pape Cheikh Diallo nit gënu ko nit ku baax la foo ko fekk day ree bari kersa lool baax bay bëgg a dee nit di ko tuumaal ak di ko sosal di ko waxal lu ñaaw man ñooñu dama yaakaar ne seen xel mi ay daye ci ne lu yàlla bind ci àdduna bi Pape Cheikh Diallo ku mu gënul gënoo ko barki Serigne Babacar si maa nekk ak moom pay xam Pape Cheikh Diallo oyof gi mu oyof xam baaxam Pape Cheikh Diallo xam yaroom ak dalam lu ko nit waxal da ko koo sosal ak wax wax ju ñaaw bàyyi leen wax bu bon bàyyi leen wax bu bon ngir yàlla ngir te bàyyi leen wax bu ñaaw bàyyi leen wax bu ñaaw di ko jëmale